mbokk yi nag ñi ngi fi nga xam ne mooy que Serigne Moustapha Diop xalifa Serigne Abdou Samad Diop moom ma Massamba Diop Sam euh, tey Touba Argentine TV ñëw fi Serigne bi ci bis bu am solo bi nga xam ne bisub ziar la di amee fii ci Daaru Sam euh, ñu bëggoon a taataan ay kàddu rek ci bis bi yan kàddu ngay yëkkati ci bis bi sëriñ bi bismillahi bi seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel bu baax ci bisub Cheikh Massamba Diop Samb bi dina bi leen sante gërëm leen ci yitteel gëm leen yitteel ba ngeen dagg seen tey yëpp ñëw fii tey euh, ngir bisu Sëñ Massamba Diop Samb loolu ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm waaye di sant bu baax di gërëm itam kenn ci ñun koo xam ne doomi kër gi la ca am ab cër ci télévision bi di a sekk ñu ngi koy sant bu baax di ko rafetlu taxawaayam bi nga xam ne nemmeeku nañ ko bu baax ci lépp lu muy dox ci lu baax waaye rawatina nag kër Serigne Massamba Diop Sam bi nga xam ne euh, moom la xam moom fu la dëkk fi la juddoo fi la yaroo loolu nag ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax waaye di sant yàlla bu baax subhaanahu wa taala ci wamat gi ñu wamatal ba teewal ñu ko bis bi tey bis bi nag di bisum mbégte di bisub siyaar di bisub saafoonte waaye di bisub ñaan yàlla ñu ñaan yàlla mi nga xam ne dara tawu ko yàlla suñu borom dimbali ñu te defal ñu tawféex defal ñu suturee lépp lu ñu fi ñaan ci bis bi suñu borom kattanal ñu mañu nangul ñu ko ca gën ngaa rafete nangu waaye noonu nañuy sant itam mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak fépp fu nga xam ne émission bi dana fa àgg rek sant ga àgg na foofa ngërëm tam àgg na foofa di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfeex ñu fekkewaat ko déwén ni bëri bëri di sant sëriñ Aarona yooyu itam gis nañ taxawaay yi nga xam ne eh, yaa ngi koy taxawee ci mbooleem événement yi xew waaye rawatina ne xew ci kër gi nag mu sa yitte lool nga koy defee nu kawe jot ñu ngi di sant bu baax ci di la gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. macha allah jërëjëf Serigne Moustapha Diop xalifa Serigne Abdou Samad Diop ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko kon go a ko déggandoo muy kàddu yu am solo ci bisub ziar bi nga xam ne macha allah mi ngi am fii ci daaru saam mboolem taalibe yi di ko teewee fii nag bi ñu ñëwee fekk nañ euh, taalibe yi di amal ziar ci kanamu sëriñ bi macha allah muy saafonte ak euh, ñoom muy muy sàkk ci moom it ñaan. Euh, kon loolu lañ fi jot a nemmeeku jàng yi mi ngi noonu bernde yi macha allah lépp di bàyyi ko fii ci kër Serigne Moustapha Diop kon Serigne bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Touba Argentine TV incha allah di ñaan yàlla ñu teewaat fii yeneen jëmi jamono yàgg la fee fekk ñu yàgg fee ñëw. Euh, kon jërë ngeen jëf mbokk yi incha allah ñu ngi woon fii ci kër Serigne euh, Moustapha Diop moom Serigne Abdou Samad Diop. soxna Njaxate dañu ñëw pour màggalal suñu maam di remercier képp ku fi teew di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp sama xarit ci sama mbokk yi ñëpp déplacé ñëw ba fii euh, seet si ñu kon du ñu am lu dul ay remercier remerciement tey la ñu am mais nekkul ne tey dañuy politique euh, dañ dañ koy jéggalu xam naa ne mais nag dinañ dinañ sant Antoine tamit parce que nit ki soo xewlee mu jàppale la jàppale ci loo xam ne mën na am mënoo ko kon kooku mérité na nga nga nga félicité ko ci lu mu def liggéey bu rëy bi mu def fii ndax ku nekk xam na ne euh, ren ziar 2023 bi Daaru Sam sécurité bi doy na sëkk ku mu neex mun nga dem fu la neex ba pare ndox manqué wu fi courant manqué wu fi kon loolu yëpp dañ leen ci euh, sant bu baax a baax aussi di sant euh, asugaawaan mi nga xam ne sama xarit la sama doomu ndey la lépp lu ma xew la daf ci teew bu baax a baax di la sant yow tamit Arona di sant képp ku jóge Touba Dakar ba Saint-Louis maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama famille waaw ci la bokk xam nga ko woote gàmmu mooy lekk naan bernde loolu ci la bokk